ñu fekk fi nga xamante ni que ay kër la goo xam dafa dëkkoo ay xale di leen dimbali nga ñëw indi fii loolu bu toll nii ci ndimbal. waaw alhamdulilah d'abord bu ñu yegg def la parce que am na association bu mag bi da leen ne bay say wéeru tànk moo tax ñu démarré bu fii parcelle suñu ñëw fii nii suñu maman moo fi nekk yoon fi ay xale di leen jàppale ñu nit lu ñu mën ci taxaw rek dañ koy def incha allah ba tax na li ñu démarré incha allah ñu ñëw fii parcelle commencé ay parce que fii mooy suñu ko ah, ah, lu ñuy def fii moo a jiitu. da koy faral di bokk ak population yi loolu conseil bi fan lay jógee wala inspiration Modou la wala Modou moom ay xaritam ah, bu ñu jugee ñëpp jóg ba tax na tey mënoo dugg ci kër ku nekk wala nga jox ku nekk loxo mais yenn action yi nga mën a def rek ku nekk gis ci sa bopp ba tax na comme vacances la nekk temps am na ñu profité ci am baax lu ñu mën a def waaw ci lu baax jaamu yàlla xam na def ko ci quoi mais lii moom comme li ñu wax yàgg na yàgg ma ko def xëy na tey xam xam mois de bu xam sis taalibe Cheikh moom ñëpp a ngi lay bég alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla xam nga nit ki moom boo dëkkee ci gox boo xewlee ñëpp jub topp waaw waaw waaw fa rafet rek nga am idée bu rafet bu mel nii mu di jël ci wërsëg mu néew mu bëri di xool ñi nga xamante ay jirim la nekk pinière mu leen yàlla aussi tamit chaque année rek ñu koy teewe quoi di ko fekk bu gën a yaatu aussi yàlla wax a waree dem entraînement dem entraînement su war a nopp nopp aussi di xaar tamit combat yi ne suñu kanam aussi ñu ngi koy xaar quoi. waaw papa may laajteeg loo xam ne ni ñu koy laaj dañ ne papa mbër mu yaru la mu baax la ñëpp la amal jàmm dama koy ma laaj ma laaj a a a la ko sa secret ak Modou parce que dama gis ak Modou ni ngeen collaborer yéen ñaar nekk benn nekk bokk ak bàyyi loolu dafa ma jaaxal trop te jafewul dafa jafe ci mbër waaw waaw mais xam nga yàlla moom mm-hmm. yàlla mooy boole yàlla mooy boole ay doomu aadama mm-hmm. yàlla boole nañu suñu war a boole ñu war a suñu àndee aussi mm-hmm. tamit di wax ne yàlla si yàlla si jàmm ànd bi yàlla sax yàlla dem ba ñu ay màgget ñu yób ñu ñuy moo foofu ñu yóbbu loolu ñu ñaan yàlla ku gis ni nen nee nañ loo ndaam offer us chance to help all these babies. We appreciate. This is uh, the same as our uh, company culture. So we will try our best to offer more help in the future. Okay. Mm. Thank you. voilà thank you thank you. voilà nee na nee na vraiment euh, comme ni ko ñëpp waxee rek kontaan nañ trop bi ñu ñëwee ba rencontré acte bu mel nii vraiment te mi ngi wax tamit Modou Lo comme ça ñoom ñu jàppante pour mën a jàppale képp kuy xale comme ak ak affaire yu mel nii genre milieu yu mel nii ñuy continuer di leen jàppale comme Modou Lo ni mu koy defee ñoom nee na ñi ngi si ginnaaw Modou ñi ngeeg moom te ñu ngi koy jàppale incha allah ba keroog lépp di bi biñ fi fekk te di nuyu yéen journalistes yi di nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu suma partenaires yi ma àndal tamit di am contentement di teew fii di wax ni nag li muy regretter rek mooy li ma fi yéex a teew ah suñu maman dañ koy ñaanal bu baax parce que li muy def jaamu yàlla mënu koo weesu xam nga ay xale yoo xam ne xam nga dañ leen abandonné xam nga ñii seen i waajur dañu gën a àdduna yor leen fii lépp xam nga ci say kër ci kër rek say moyen bopp xam nga dañ ko ci moom ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla gën a jëmale kanam ba yéene yi mu am ci xale yëpp yàlla motali ko te sax yàlla na ko fay nga li muy def moom da koy def ba tax na ñu ngi am contentement bu baax a baax a baax baax ñëw fi daal te incha allah di ko wax fii suñu kër la incha allah dootuñu fi géej bu soobee yàlla ci incha allah dootuñu fi géej bu soobee yàlla suñu borom di gërëm encore suñuy partenaire rek waa Best Star waa Best Star parce que ñu fi nekk bari na xam nga ñëw choisir ma xam nga fas yéene jàppalante ak man xam nga ba lépp lu mu dugg rek incha allah ñoom ñu suma ginnaaw incha allah dinañ ko def yeneen ak yeneen ak yeneen ñoom it di leen ñaan bu baax baax fi ñu bëgg affaire yegg fa rek ah yàlla na fa yàgg yàlla na fa yàlla yeggale fu raw njort bi xam nga da ko sénégalais du use na xam nga couche yu baax la ñoo ngi liggéey maak ñoom depuis huit mois ah, bon mais tey la ñu yàlla dogal ñoo am sorte bu mel nii te dinañ ko def bëgg nañ ko def ci yenn ak yeneen ak yeneen incha allah vraiment xam na comme ni nga ko waxee rek di ànd champion yi ma àndal fii ginnaaw ba ma nuyoo journaliste yi xam ko ci mel ne Papa Sow Yékini Junior xam ak sama gars yi bopp yi di nuyu Youssou Ndoye bu baax baax parce que ñoom ñëpp tamit ñoo ci jàpp xam nga def ci seen moyen fas yéene ci jàpp incha allah ba fu mu yem bu soobee yàlla suñu borom vraiment kontaan naa bu baax a baax a baax waa Tampico jàpp nañ ci puisque ndox yi fi nekk ak yow yëpp ñoom ñoo ko indi xam nga ñu fas yéene jàppale tamit ba ci kanam di gërëm ñëpp daal incha allah vraiment kontaan nañ trop trop trop déwoo ñëpp nañu ñëw jàpp ci xam nga parce que lii maman di def xam nga li may wax rek jaamu yàlla mënu ko weesu xam nga te vraiment ku nekk xam ne coono bu mag a mag ngi ci xam nga débrouiller say moyen bopp ak yooyu noonu métti na nañ ñëpp ñëw jàpp ñun daal incha allah dañ ji taxaw comme ni ma ko waxee def nañ ko suñu kër dooruñu fi géej bu soobee yàlla suñu borom vraiment kontaan naa maa ngi nuyu staff bi yëpp yëpp yëpp vraiment merci عمي ما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بقور صدق الله العظيم يا رب بالذات وبالصفات وكلنا في ذات القدر سبح قلوبنا على الإيمان